bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa sala allahu nabiyina muhammadin wa alihi ajmain mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziyaara di ndokkeel di leen ziyaara ci weeru tedd wi di rama shahr ramadan mubarak ci ndokkeel mbokk jul yépp ramadan nag ku ko wax wax yiw wax mbaax kon dana baax bu agsee ñu fàttalante ak mbokk julli di ne weeru mbaax ñëw na weer woo xam ne ku ci sàggan ba duyoo ci ba feesal rek yow la sàggante rek mooy tax nit ki weer yu ñëw ba jàll te duyoo ci ba feesal jaabir ibnu abdullah radiallahu anhu dafa daan wax naan nga waaye bul sa bisub koor bu mu yem mukk ak bis bi nga wóorut ramadaan moom bu mu yem ak bis yi ci des kon lu mat bàyyi xel la jullit yépp war koo waajal Mawlaana Cheikh Ahmadul Xadim radiyallahu anhu sunu sëriñ moom tam bokkoon na ci ñi gënoon a yitte wooweer yi daan yàkkamti mu ñëw ndax xam li ci nekk di ko teeroo ba itam yu am solo yooyee yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi bu dikkee mu di ci yokk mbaaxam te léppam lu baax la woon kon kooko it ku muy sa war ngaa bàyyi xel ne weeru koor ñëw na war nga ko def yitte soññi sa bopp soññi sa ñoñ ñu fonk weer wi bàyyi xel it nag atte ci aju ngir fàttali ñu wax nit ñi ne bu ramadaan teroo rek farata ji jiitu ci ay faratam mooy yéene jaam bi faw mu yéene woor weer wi te jublu ci jaamu yàlla te yéene ji nag faw day jiitu fajar faaw nga yéene njëkk fajar di jot ku nelaw ba asamaan set ñu ne la weer yi feeñ na biig da nga jàpp de ngir wormaal weer yi waaye bis booba da koy fay kon faw yéene ji da fajar moo tax ñu yittewoo topp weer bu feeñee rek nga mën a fas man fas nag yéene woor weer wépp su boobaa euh, danañ sopp yit nga yeesal ko gudd guddi waaye warutu la boo xasee yéene woor weer rek fekk amoo ngànt ba dog yeesal yéene ji dañ koy sopp ci waaye nekkatul loolu war beneen farata bi nag mooy nga téye sa bopp ci mboolem yi dogloo bul lekk bul naan bu fi jaxasoo bul def lenn luy tax sa koor yàqu ñaari ponk yooyu la am am ay sunna yoo xam ne ñett la ci gën a fes mooy gaaw a dog ginnaaw bu jant bi sowee ak yeex a xëdd njëkk fajar di jot ñu ñu bëgg yow mi woor buñ ne dog jot na sunu borom mi la digaloon woor moo la sant nga dog kon teelal la wane sa topp ndigal bul wax ne ma nekk ba mu lëndëm bul wax ne ma nekk bu julli ba noppi dogal rek ndax ndigal li mooy dog xëdd it bu guddi gi xasee xaaj loo lekkati yéene ci xëdd xëdd la waaye nag dañoo sopp nga néeg ba fajar di waaj jot nga xam ne boo xëddee ba noppi daal boo toogee lu tolloo fukki minute ak juróom ñu noddu foofu lañ gën a taamu kon loolu it ñu koy fàttali mbokk yi bi ci des ci sunna yi mooy nga téye saw làmmiñ ci lu amul njariñ waxuma lu bon lu moom dañ ko war a bàyyi ci waxtu yépp rawati bu ramadan dikkee waaye ci koor gi dañoo bëgg lépp lu amul njariñ nga tey ci islaam yi nga xam ne say wax lépp daal lu am njariñ yaa ngay tudd yàlla ci alxuraan yaa ngay tudd yàlla ci xasida yaa ngay tudd yàlla ci xeeti askar yi di def istigfaar wala nga toog ci ay jataay xam-xam wala nga yor sa rajo buy wax di waare di di soññee ci mbaax nga di ko déglu fexe daal ba jeexal sa bis ci lool sëriñ bi daa waxoon ne dëgg-dëggi koor ci répp koy def fa sawmu ay yasuuma an kulli fu yufdi fatan li saawi dëgg dëgg koor nee na ci répp koy def ni ni nga téye sa biir lekkoon naanoo fajar ba jant bi so téye ko sa bët ci xool lu amul njariñ rawatina lu xaraam moom jël nañ ko say nopp say tànk say loxo fexeel ba téye lépp ba ci say xalaat sax la wax maanaam boo xasee woor xalaat bu ñaaw sax bu ko xalaat fexeel ba jëmale say xalaat ci lu baax loolu mooy koor gi nga xam ne bu ko nit ki defee nag yiwu kese la sunu borom nee na ci xadis xudsi yi koor maa ko moom maa koy fayal sama bopp. jaamu yàlla yépp nit ki mën na koo def ba noppi eh, wane wane eh, ñu xam dafa nga wala defoo ko bu julli jotee ku julliwut danañ xam ne julliwut ndax tooñ ko taamu mooy ca mbooloom boo dikku danañ xam ne ñëw te boo amul ngànt xam ne di jàpp ne julli amul solo yi ci des noonu waaye nit ki nag mën naa ñëw ne woor naa te fekk wóorut kenn du xam moo tax borom bi ne maa ko moom maa koy fayal sama bopp kon loolu it ñu ngi koy fàttali mbokk yi. di fàttali it ne mbokk yi woor it wàññi lekk la dinaa ko faral di wax lu bari waaye du soppi waxtuy lekk rek dañoo bëgg nit ki su wooree li mu doon jëfandiku mu wàññiku waaye wax ñu rek ñu ne la bëccëg bu lekk waaye su guddigee li nga waroon a lekk ci guddi ak bëccëg gépp nga boole ko loolu taxul ñuy wax bokk na ci yi sëriñ bi juñu foofu ci wax ne am na ci nit yi ñoo xam ne dañuy mel ne ay nag bu ñuy ndogu mbaa bu ñuy xëdd seen biir fees dell dootuñu am tiyaaba nga xam ne koor ab xiif lañ cay jëlee daal di wax ne bare na waa juy woor ànd ak mbooloo mi te du am ca koor ga lu dul ab xiif bu fekkee xiif am na jariñ daal xiif dong lañ cay jariñoo waaye duñ ci am tiyaaba ndax benn sàmmonte wuñ seen yeneen cër yi bàyyi wax yu amul njariñ xanaa ña ngi ci caaxaane ña ngi ci wax yu amul njariñ ña ngi ci sax léeg-léeg lu ñuy tere ci ay wax ak jëf moo taxoon mu ne woon koo xam ne bàyyiwut wax lu dul noona ak def lu dul noona yàlla amul soxla ci bàyyi gum bàyyi lekkam ak naanam loolu yonent bi salaam moo ko wax kon ñu bàyyi loo xel mbokk yi ne koor jaamu yàlla gu màgg la boo xam ne bu dikkee jàmm bi daa war a soppiku gën a jëm ci baax soppi fu mu doon dem fu amul njariñ fee bu mu fa demate lépp lu mu daan téye ci loxoom lu amul njariñ na ko bàyyi lu mu daan déglu wala mu di ko xool te amul njariñ na ko bàyyi tey boppam nag fas yéene yiw wi ne ci Ramadan bu Ramadan di dem kenn bañ ko ci ëppale sunu boroom yonent bi salaam nee na guddi gu nekk ci ramadaan dana tànn ay nit gore leen ci sawara guddi koor gi dana tànn ay nit gore leen ci sawara bu nee ba ci mujj gi nag mu jéggal ñëpp kon guddi gu ne boo góorgóorloo ci baax mën ngaa fexe ba bokk ci ñi yàlla tànn bu weeru jeexee it ñami boole ñëpp nga bokkaat waa set ci bàkkaar loolu lu am solo la wax na it moom yonent salaam ne koor mii ku ko woor ngir ngir yàlla ngir gëm yàlla ak sàkku teeba ñu jéggal la la jiitoon ci say bàkkaar koor mii ku ko naafi la guddee bi ngir gëm yàlla ak sàkku teeba ñu jéggal la jiitu ci say bàkkaar kon mu mel na ne passé la boo xam ne taq-taq taq-taq yépp mën nañoo tàggaw moom ci buñ ko joxee àqam daf li ci war waaye nag weeru alquranul karim la kon luñ ci doon jàng alxuraan nañ ko yokk waaye weeru dimbalante it nag la ñëw na ci xadis sarax bi gënal yàlla mooy sarax bu nit ki def ci weeru ramadaan joxe ci aw jamit yi wuru jeex la yonent bi salaam nee na it ku fekk nit mu xiif nga jox ko mu lekk yàlla dana la dana la dana la berndeel ci ñami al meññeti yi boo liggéey nee na ku fekk ku mar nga jox ko mu naan yàlla dana la nàndal ca naanuk aljanna ga waaye nee na ku dogal aji woor danga nga am ci tuyaaba lu toll ne aji woor ji la mu am ca koor ga te du wàññi ci tuyaaba am dara nga xam ne kon yow man ngay woor ba noppi di am tuyaaba yi nangami koor ndax li nga dogal ci ay nit loo dogal ci ay nit rek danga am tuyaaba yi toll noonu kon mën ngaa doon kenn nit am tuyaaba yi fukki fukki nit ñu woor ndax say jëf kon weeru wax la ku ci jàll ma a gan nit ñi néew doole di soxla ndimbal nga fexe ba jàppale leen ñu mën a dog yiw réere loolu maa ngi koy fàttali sama bopp di ko fàttali mbokki jullit di ci weer yi nga xam ne jamono ji xat na metti na waaye nag passé la ngir mën a am ngërëmul yàlla ñu baax ñëpp nag ci passé yu mel nii ci lañu rawee seeni morom fexe ba moom dara bañ leen ci raw lu baax luñ ci santaane ñu def ko seen ngëm kàttan di woor bëccëg yi di dimbale di saraxee guddi yi ñu di ko la waaye nag sàmmoonte teggee ni nga xam ne mooy fexe bay jëfandikoo lu yem ba saw yaram du diis ba nga tayal jaamu yàlla bi daa wax ne na ñoo xam ne nii nag la ñu mel bu ñu lekkee bu ko defee dañuy des gan dootuñ sawar ci jaamu yàlla ba noppi di wax nañ ne woor nañ te fekk da amuñ benn tuyaaba loolu yàlla na ci yàlla musal da kon moytu baax na am solo lool bi ci des it ñu xam ne woor daa bokk ci li sabab wér-gu-yaram ci kaw nga teg ko ci yoon bari na ñoo xam ne léegi topp suukar topp xorom topp nangam topp diw ba bu koor gi jeexee dañ koy jëlee ak wéradi te safaan bi la waroon doon yooyu yëpp nag maa ngi koy fàttali sama bopp fàttali mbokk yi. bul topp ni war naa ba nga ngoon rek kon lépp luñ ma lu mu xeme moon ci bëccëg bi fas naa yéene balaay fajar ma jëfandikoo ko boobaa wér-gi-yaram gi ci doon séenu mën naa am nga jële ci safaan ba ndax yow jaaree ko fi ñu ko war a jaar loolu daal mbokk yi euh, mat naa bàyyi xel bu baax a baax ci sunu biir ñun jullit ñi waaye ñu bàyyi xel ni taalibe Sëriñ Tuubaa lañ te moom Ramadan da ko ñoroon a ñor goo xam ne jéggi na dayoo yàlla it nag defal na ko ci ndam bépp barab bu am tey ña ngi fay dundal koor ci anam goo xam ne ji gën a fu ne jàkk yi ci jumaa yi ci rajo yi ci waxtaanu ko yépp ñu ngi fay waxtaanee yu baax di soññ nañ ci baax kenn ku ne ci doon na fexe ba bu ko ci kenn topp waxtaan yi di teewe ci jataay kem kàttan waaye fépp fu ñi dafay ay ndogu loo ca mën nga jàpp ca ndax euh, lu mu tuut tuuti benn doomu tàndarma boo jox nit mu dogge ca yi wóorul jeex la kon ñi am ndimbal man a dimbalee pase bi yoo ngi nii rawatina jamono joo xam ne am na nit ñoo xam ne seen loxo jëlul seen ginnaaw dañuy war ba ngoon di lijjanti luñ doge foofu jëf lu fa fay def day tonaw bu faw loolu maa ngi koy fàttali sama bopp di ko fàttali mbokk jullit yépp di ñaan suñu boroom daf ñu ma ñu tawfiq ba nga xam ne koor gi danañ ko mën a danañ ci mën a tàbbi ba jeexal ko liñ ci santaane lépp ñu mën koo def liñ ci tere lépp ñu moytu ko sori ko waaye li ci yàlla déggee ci yu yëpp ñu mën caa jot bokk na ci yi woowa yonent bi salaam nee na ci la laylatul qadri nekk te genn guddi gu wecc junni guddi la maanaam genn guddi goo xam ne boo ko doon nattale ëpp na juróom-ñett fukki at yoom boo ko jaamoo day mel ne kon jaamu nga yàlla juróom-ñett fukki at jaamu yàlla gum nangu te loolu nag liy tax ndax sunu boobu da koo lëm boo ci bëggee mu leer ne la jot nga ci fexeel ba fonk guddi yëpp rawatina. fukki guddi yu mujj yi gudd yépp na gudd yu tool yi fonk yépp fanaane koo dundal euh, dana tax euh, yiw yiw woowu nga wante jot bi ci desit weeru li'tikaaf la mooy dem ci jàkka ja dëkk ci jàkka ja di jaamu yàlla jàng alxuraan di julli di as dafa askar loolu sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoo xam ne bokk na ci ñi ko gënoon a dekkal fii Mawlana Cheikh Mouhamadul Mourtada radiyallahu anhu ñëpp xame woon ko ko loolu it képp koo xam ne am nga paseb man koo def bu ci xeb dara benn bi sax baax na comment def fukki yi mujj yëpp nag moo gën dem ci jàkk ji dëkk fa di jaamu yàlla def yu baax loolu yiw wudul jeex la yooyu yëpp nag buntu mbaax daal ubbi ko na kon bi ci des it liy gàllankoor nit ñi mooy seytaane yonent bi salaam nee na bu ramadaan dikkee yàlla day jëng seytaane yi tëj bunti sawara yi ubbi wunti aljanna kon lu baax day yomb ginnaaw nag lu baax yomb na seytaane mii suñ noon bu mag daan ñu yàqal dañ koo yeew fi mu ne nañ fexe nag ba mbalawaay eh, suñ bakkan suñ bakkan walla bànneex bu mu ñu gàllankoor nag ba xañ ñi yu baax yi nga xam ne moom lañu dëgg man eh, bu ko defee nag dana baax ci mbokk yi ñu xam ne ramadan bu dikkee atte yi ci aju dañ ko war a xam ramadan bu teroo waxtu yi nga xam ne moom la ñuy woor mooy fajar bajant bi so guddi kenn du ko woor kon war ngaa fexe ba ba lépp looy def ci lekk ak naan nga def ko bala ñoo wax ne asalaatu xel mi noo mi kon fexeel ba jiitu ku fukki minute ak juróom nga ne nga xam ne da nga nopp ci lépp toog fukki minute ak juróom ñu door nodd nga fas yéene nag jàpp ci lekk ak naan ak jaxasoo yi dokkoor jublu ci jaamu yàlla. bu jant bi sooyee diggante boobu la ñuy war fu jant bi sooy it nga dog yàq koor nag bari na bokk na ci mabbu yéene ji man la xam nga koor yéene la yaa fas ci sa xol na ngaa war bis boo jékki-jékki woon ne yéene ji mu ne yéene ji kat dindi naa ko sa koor yàqu na boo lekkee mbaa nga naan te tey ko sa koor yàqu na naka noonu bunt yi ne ci sa kanam ci sa sa kaw say nopp say bët say bakkan sa gémmiñ lépp lu fi jaare ba àgg ci sa bëli ci likit sa koor yàqu na moo tax dañuy bëgg na ki bu wooree bu doon tuufu li gën mooy na koy def guddi boo amoon ay toqal yu muy def ci bakkanam di ko fajoo mbaa ci ay noppam na ko def guddi ndax su ko defee bëccëg bu yëgee bu agsee ci bëli gi te mën naa agsi booba kooram day yàqu loolu it mën na mën bàyyi xel moytu it saxar yi nga xam ne xeeti saxaar yi saxaru cuuraay day yàqu koor saxar cin cóola cin nga xam ne boo ubbee cin li saxar su jóg da yàqu koor saxaaru cigarette da yàqu koor yooyu nañ ko bàyyi xel boo seetloo fi ne tuxkati cigarette duñu bëgg lekk day mel ni ndax loolu day taxaw taxawaay lekk ci ñoom saxaar si ñu naan day taxaw taxawaay lekk ci ñoom ñuy togg it ñaare bu ñu noppee da ngay dégg ñu naan lim togg ndax jëmmi saxar su deen dugg day waaye fa day wàññi xiif bi moo tax yooyu day yàqu koor saxar mooy saxarus matt ak këriñ yooyu moom nit ki jégal nañ ko ko naka noonu poussière ak pënd ñiy liggéey ci mel noonu maçon yeeg ñii ne ci liggéey ci mbedd yi di baleek poussière bi leen dugg li gën mooy nañ wut masque di ko takk su ko defee lay rëcc di dugg nag jégal nañ leen ko ñu bàyyi xelit ne ay lor teflit yii moom du yàqu koor nit ñu bari dañuy woor ba noppi nag fu ñu toll ña ngay teflit te xam ne teflit lor yi boo ko dajale moom bari nga wan na ko te tey ko sax sa koor yàqu kon loolu jërut ndax xayade gi ci nekk ak it ay jàngoro mën na ci doxee tasaaroo kon yooyu mën na moytu bu kenn laytoo woor ba tax foo toll di tifli socc yi nit ñenn ñi nga xam ne fu ñu toll it gàddu socc it socc nañ xam ne fi ñu ko taamoo mooy boo lekkee ba noppi daan di firisit nañ bàyyi xel ne atteb socc bu tooy la te socc bu tooy dañ koy tere ci ramadan kon man nga boo xëddee ba noppi balaa jàpp jot nga daan di firisu boo reeree ba noppi daan di firisu ndax ñam wi des say bañ lañuy bañ mu des ci di yàq say bañ bu ko defee nag saa bu sa gémmiñ soppi ko ndax noppi lu yàgg wala doon wax lu yàgg mën ngaa soccu waaye nag toog benn barab socc boo nappee raxas socc bii gàllaxandiku mu jeex waaye gàddu socc nag di ci gaañ nit ñi la léeg yàbbee de fu ne nga di ko fasaanee loolu bokkul ci teggee ni koor yooyu it mbokk yi nañ ko bàyyi xel ba xam ne loo mat kon daal ñu ñu ñu ñu xam ne àtte yëpp dañ ko war topp lépp lu ci leeru nit na ko moytu pikiir du yàqu koor waaye nag Euh, profession yi ñu defal nit moom ku woor boo ko defee sa koor dëgg na da yàqu koor moom waaye nag bu dee piqué yi nga xam ne dañ def ci siri yi rek yooyu euh, ba tey lu mel ne yi nga xam ne nit ki mën naa woor di ko def mooy maye deret bu ko leeree ne am na kàttan goo xam du ko wàññi dara waaye buy sikki sàkk ne mën naa miir mën naa xëm ba waa nag na bàyyi ba dog kon ku wéradi wala ku néew doole dañuy tere mu woor ba noppi di maye deret yooyu it jàpp naa ne yi mata bàyyi xel la bi ci des ñu xam ne koor it nag siiw na fii lool nit ñi di wax dàq koor koor di su dàq ku xam li ci ne da ngay yàkkamti mu ñëw di déglu ay caaxaan ngir bëgg a fàtte méttitu koor it amul yéen koor wari su ko fàtte jaam bi daa war toujours mu yëg ne mi ngi ci koor mu yëg ne mi ngi ci koor mooy waral àq ji mën ko ko jox waaye bu fekkee day déglu ay caaxaan di seetaan ay fo ngir fàtte koor gi mën naa tax sax mu def lu lu baaxul ndax fàtte ne waroon na nañu roy Sëriñ ba radiyallahu anhu ci yittewoo gum woon koor di ko gàttandu buy dem muy amu naqar waaye ñun fi ne bu koor duggee jàmbat yi mooy war weer waa ngi ñëw tàngoor week nu ñu dafa koor geek jàmbat aw yu wutal ni mbokk yi nit ñi nañu dañuy xentewoo mu ñëw sahabatu rasul ridwanulaahi alayhim ca jasira barab yi gën a tàng ci àdduna ci la bokk ci weeru Ramadan fukki fan ak juróom-ñaar ci lañ doon xare xare badar bu rëy boobu te ñu bari ci ñoom dañoo wooroon kon day wane ne koor dàqoonti wut ak coono waaye yiw yi ci nekk tax kon wërisu ko dàq wërisu ne dañ koy dañ koy jéem a jéem a jéem a fàtte waaye dañ koo teewlu saa su ne ñu war a bàyyi xelit ne kaf jëmu ci ñi nga xam ne bu Ramadan dëkkee ñu ngay organiser ay caaxaan daanaka di ci wax yoo xam ne léeg-léeg di àtte mel ni ab mufti buy joxe àtte di dagan lu yàlla araamal loolu nañ ko moytu yooyu caaxaan jëmu ci ab jullit du fooyee diineem jullit du fooyee diineem ndax lu ñor suñu borom la kon loolu su ko fooyee loolu daal dina ko bàyyiloo xel mbokk yépp ñu xam ne ramadaan a ngi noonu yiñ ci sopp nag bari na lool yi ci dagan yoo xam ne day nuru yàq koot du ko yàq bokk na ca nit bu woor gi metti woon lool mën naa dem sangu xëppoo ndox ngir woyofal ko boo demee ba sa gémmiñ boo koŋ bu mënutoo wax mën ngaa galaxandiku waaye na nga fexe bu dara jàll yooyu terewuñ ko nit ki li gën mooy bu amee janaaba ci guddi gi na sangu balaa fajar waaye bu sangu wutit ba asamaan seetit du koor gi baax na moom bu fasee rek baax na waaye koo xam ne dangaa tukki ci biir koor gi moom bis na nga xam ne guddi gu jot da nga yéene ki ne ci dëkk bi fi mu dëkk la ñu wax ne bu koor gi tàmbalee mën naa yéene woor weer yépp su ko defee nekkatul farata ci moom guddi gu ne mu yeesal yéeneem waaye dañ koy sopp rek waaye boo xasee tukki rek toftalee koor gi waratu la kon bis booy woor bu ne da nga yéene ne suba dinaa woor te faw yéene ji day jiitu fajar loolu it na ci attay koor yi ñu war a bàyyi xel kon fonk bi ci desit dinaa ko faral di wax wax nañ ne bokk na ci sunne yi gaaw a dog ginnaaw bu jant bi sooyee dinaa ko faral di wax mbokk yu bare gaaw a dog lañu wax waaye waxuñ gaaw a ndogu dañu bëgg bu dog jotee nga dog dog ndox a koy def ak tàndarma parce que nga lekk tàndarma naa gàllaxandiku dem julli ji yu bare fii ci nit nag ndax ko ndaayee ñu ni mel dañuy ñoom li ñuy def tudde ko dog ndogu la ndax lu bari lañuy tiim am mburu ñu xar ko daf ci bare bari fas yéene jëfandikoo lépp dooru julli ji kon di puus julli gi jëru ko nañ dem dog ci tàndarama bu ñu ko amee bu ñu ñu naan ndox gox ñetti goxi ndox dem julli ji boo ñëwee nag ndogu loolu mooy sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci it ay teggi ni koor ak mbaaxam naafila guddi yi naafila naafila lu am solo la dundal guddi na fukki guddi yu mujj yi moom bu ko defee naafila nag sax nag ci ab jullit sunu sëriñ Maulana Cheikh Ahmadul Xadim mu dañoo jàngaloon wérdam yi mu joxe sant ku taalibe boo ci nekkee gudd gu nekk da nga naafila fukki rakka ak safa witar loolu lañu wax ne yonent ay salaam ci ramadan ak lu dul ramadan mosu ko bàyyi ba ni mu génnee àdduna kon moom la ñuy naafila ci jàkka yi dañ jax taamu it di na di ci tari alxuraanu karim kon ku mokkal alxuraan di ko jàng ñëmante naa fi lal bopp seen kër dem ci jàkka yooyu am solo la déglu alxuraan ji loolu bokk na ci li liñ ci tàmb kon koo xam ne man nga ko sa bopp sa kër ak sa njaboot moo gën moom saa bu ngeen ma léegi ngeen naa fi la fukki rakka ba mokkale alxuraan rakka bu na nga jàng coro ba mu ñaari isib ak nisif nga def sawa bi tar soo ko mokkul loo man baax na donte ñetti lixlaas ngay jàng ginnaaw fatiha mu nekk bu baax na alam taraak suuf baax na loo man ci alxuraan baax na waaye daal fexeel ba limu rakka ay mat nga def safa witar léegi nag boo ko mokkul alxuraan te sawar te man ko nag la gën mooy nga dem ci jàkka yi ko defee ndax ci tawféex yàlla ak mbaax ñaanu ko sëriñ gu nangu tax na dëkk bi moom wet gone jàkka yu ne daanaka ñu ngi fay alxuraan kon ku ci nekk fa nga jege mën nga faa dem bokk ci woowa déglu alxuraan ji teewlu ko bokk ci julli gi bu fekkee nag bëgg nga naafila ci guddi gi buñ demee bay safa witar da ngay bàyyi yow ndax dañoo bëgg safa witar mujj ngay gis koo xam day am yeneen naafila lu mel naafila sëriñ Soin bu diggale ci téeram bi yu am solo yooyu jote wut ak naafila yi da ngay naafila yi ba noppi nag boo noppee def ko ki nar a def yooyu nag bu àggee ci safa witar na ko bàyyi bu ñëwee ci këram ba defaat naafila yi mu bëgg a def yépp tëjee ko nag safa witar ndax yonent bi ay salaam moo waxoon ne li ngeen ni mujj julli ci guddi gi na doon safa witar kon loolu it na ko mbokk yi bàyyi xel baax baax bu ko defee ñi nga xam ne nag yoon may na leen ñu dog koor bokk na ca mag moo xam ne dafa jeex dem de mënatu woor kooku koor wàcc na ko ndax koor ku ko mën la ko yàlla teg am na koo xam ne ay atam mayatu ko muy woor kooku woor wàcc na ko kooku sopp nañ ci moom bis bu xëyee mu joxe 625 grammes ci ceeb bu ko neexee bu weeru tero rek mu boole ko joxe ko bu ko neexee bis bu xëyee joxe benn bu ko neexee néeg ba weeru jeex ba ñu weeri feeñ ne mu xam ne fan weeri fan la wala ñaar fukk juróom-ñeent la mu totaale ko joxe ko mën na koo séddale mën na koo jox kenn nit waaye bis set mu joxe mudd loolu mooy ki nga xam ne dafa dem ba mënatuta woor ngir ak mage naka noonu ki feebar docteur yi xamal ko ni ko mënoo woor te feebar bi it du lu wér ne bu dee feebar boo xam ne yaakaar nañ mu wér day faju su wéree fay waaye koo xam ne feebar la joo xam ne jàpp nañ day dëkk ak moom jàppuñu dana wér te amul benn jamono day mooy seddu jamono ju mën a fay ju mën a woor kooko war wàcc ne ko moom itam kooko it sopp nañ bu xëyee mu joxe am mudd muy 625 grammes ci yàpp jigéen ji nga xam dafa toll ab diggante te bu wooree doom ji loru kooku daa war a dog bu fekkee doom ji du loro waaye dana sonn lool dagan na mu dog su ko defee moom bu weer jeexee bu yàlla mayee jàmm ba mu set mu fay bu fay moom dara waru ko fay rek ko war day xool weer ñaata bis la mu fayal toll noonu jigéen ji nàmpal nga xam ne moom itam bu wooree doom ji du am lu nàmp te mën a gut lekk kooku it mën na sañ naa dog waaye moom bu dogee ba doom ji dëgër ba muy fay bis bu set da koy boole joxewaale am mudd muy cinq gramme ceeb mooy liibar ak xaaju genn wàll liibar bis yi bis yi mu war a fa yépp da koy boole loolu di ko joxe su ko defee nag képp koo xam ne danga dog sa koor te tey ko ci rul ngant yi ñuy wax yow nekk ko jigéeni wérut nekk ko kuy nàmpal nekk ko ku feebar nekk ko mag mu jeex waaye daal ko sàggan rek la dog kooram te tay lekk mbaa mu naan naan goo xam ne ci gémmiñam la ko jaare mbaa mu jaxasoog soxnaam te moo ko tey amut benn lay kooka kooram yàqu na fay bis ba war na ko kafaara war na ko te mooy mu woor ñaari weer yu mu toftale yoo xam ne bu ci dogoon benn bis lépp yàqu wala mu leel juróom benn fukki miskin ku ne mu jox la mudd ba mu jox loolu mooy daan yi ñuy teg te tey ko te amuloo ngànt te amu wenn layit bu xel nangu loolu jar na bàyyi xel kon weer wu ñu sàggan bi ci deseet ñi am ngànt ba wóoruñ bëgg nañ ñu suturaal ak wormaal weer wi bu ñuy xewul buñ toog kanam nit ñi deen wan ne man wóoruma dama am ngànt waaye làqutul naka jëkk nit ñu baax ñi soxna yi am ngànt doo ko mën a xam léeg-léeg daawoo ko xam ci kër yi ndax ku ci jëfandiku da ngay fexe ba kenn du la gis ndax wormaal weer wi ak su suturaal sa bopp ak wormaal boobu ak nit ñi nga dëkkal loolu it lu mat a bàyyi xel la waaye bu lay rek man am naa ngànt kon mën na maa lekk ci kanam ñëpp man maa def lépp yooyu yëpp nag nañ ko bàyyi xel. boo xamee nag jigéen woor na ba bëccëg jot baax feeñu ko koor ga yàqu na moom ca sa mën naa dagg koor ga lekk ndax koor ga baaxatul sëntuñ ko it mu ab mu àggale bi si mu jàpp saa bu setee te fajar jotagut mën naa woor donte sangagut na yéene moo tax dañuy bëgg jigéen ñooñu gisuñ baax. bala ñoo tëdd nañ xool seen bopp bu ñu gisee ne set nañ ñu sangu julli timis ak gee bu ñu yeewoo bu dee koor la bëgg nañ muy balaa fajar balaa jàpp jot mu xool boppam bu setee mu man a yéene koor bu fi sangu xajee mu sangu bu fi sa xajut baax na waaye mu yéene koor loolu it bokk na ci li nga xam ne jar na bàyyi xel baax baax waaye daal ku gis baax ci bëccëgu Ramadan wala meret jigéen ji am doom ñooñu feek deret doju setut bañ a ah, euh, woor waru leen te bu ñu waree koor du baax waaye rek dañ koy fay ñoom dañuy fay dañuy bu loolu jeexee dañuy fay koor gi bis yooyu nga xam ne dañ ko am ngànt liñ gën a taamu nag mooy bu weeru jeexee rek buñ ko mënee teel a fay moo mën nañ koo fay sax nag ci bisi koor yi nga ngay ci des juróom-ñeenti fan ñuy woor ci tabaski wala ñetti fan tam xare wala ashura bis yooyu nga xam daal bis yu ñu taamu woor la nit ki mën na ca yéene fay Ramadan. yéene waale ci naafile gi du see dana ko am kon loolu it bokk na ci yi nga xam ne eh, suñ mbokk jigéen ñi baax nañu bàyyi ko xel baax di seet seen bopp ci Ramadan waaye seeni kilifa it di leen nemme ko ñi ci amee bor ñu ñu ñuy fexe ba ñu di ko gaaw fay loolu aw yiw la waaw liñ gën a taamu mooy nit ki bu àndeek soxnaam mu teel a yow sangu balaa jàpp waaye bu ko defutit nag xëyee janaaba du yàqu koor nit ki mën naa xëy yore janaaba ndax la cay kii rek mooy dina day yéex a julli kon bu amoon ngànt wala mu tëdd biddanti loolu la ko war a waral dëgg dëgg biddanti du tee koor ga baax na moom ndax yéene woon na ci guddi gi woor yore gi yore janaaba du tee koor gi wér kon na fekk bu fekkee yéene woon na waaye li gënoon nag mooy mu sangu ci guddi gi njëkk fajar di jot loolu mooy li gën waaye bu ko defuti nag du yàqu dara ci koor gi naka noonu ku woor ba digg bëccëg muy nelaw gént jaxasoo man ñuy génn ci moom bu yewoo na sangu ji fóot ay yéreem waaye koor ga yàquwut waaye bu doon fo ci ay cëram nag ba man yu génn moom koor ga yàqu na te kafaara war na ko day fay kafaar waaye ki nga xam nag da doon nelaw gént loolu yoonam ne ci moom teg ko boppam loolu du yàqu koor moom nit kii bu xamoon ni bëccëgu ramadaan ci bëccëg bi waaye li mu xam yàggut lool waaye bi fajar jot fekk ne mu ànd ak sagoom koor ga baax na waaye fu koo xam ne jamonoy fajar nga xam ne ci lañ war a jàpp ku mu fekk ngay xam bis boobu mënatoo ko war koor ki mu war mooy mukallaf mukallaf koo xam ne mag la majeur na ba pare ànd akum xelam te amul ngànt amul ngànt mooy leen feebarut tukkiwul ku tukki tukki bu sori sañ naa dog bu dikkee fay ku feebar sañ naa dog wala léeg sax dog war ko bu dee feebar boo xam ne boo wooree mën naa faat mbaa mu ñàkk ab cëram faratale ci moom mu woor mu mu mu dog euh, gone nag goo xam ne baaleexagut dañuy wax ne woor waru ko deesu ko ci force itam maanaam bokkut ak julli mi nga xam ne dañoo bëgg bu amee juróom-ñaari nga digal ko bu amee fukkeet nga di ko duma sax ngir mu julli ndax bëgg mu tàmm ko dañuy wax ne koor mu ne su ko tàmm tey it nag gone guy màgg mën naa bañ a gën ci moom waaye nag suñ bëggee woor kenn du leen waaye bokkut yi nga xam ne dañuy bëgg a forcer di leen woor moom ndax moom waragu ko waaye daal koo xam ne baleex na mag la ànd ak sagom nga xam ne am xelam a ngi fa te mi ngi ci dëkk bi mu dëkk tukkiwut wéra diwut war war na ko boo mun ngànt yi dal comme jigéen nekkul jigéen ju gis baax wala mu gis meret war war na ko loolu daal laa ne woon maa ngi koy eh, eh, fàttali sama bopp di ko fàttali mbokk yi di sant mbooleem eh, mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp nag ñu ngi siyaare ñëpp di ndokkeel ñëpp di baal ñëpp àq ginnaaw bu ñu leen baloo àq di wax ne wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu